alhamdulilah rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala asraf alanbiyai walmursalin sayidina wa moolana muhammadin wa ala alihi wa ashaabihi zawi ridwani wa tamkin alhamdulilahi sil jalali wal ikram nashkuruhu ala mawasimi alxayrat wal inam innahu huwa albarru rahim وأصلي وأسلم على خير من قش عليه القصص بقوله تعالى لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب وعلى آله الأصفياء وأصحابه الأبرار وعلى أسنى قديمه الطوباوي مولانا وربيعنا الشيخ القديم رضي الله عنه ونفعنا ببركاته وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها المشايخ الأجلاء من أسرة سرين مصمبة وعلى سرين شيخ مكي ومن أسرة البسوبي سرين شاه بسو وعلى سرين محمودا بسو وسرين مام سرين بسو والسادة والسيدات والإخوة والأخوات في الإرادة من قريب وبعيد يسرني جدا أن أقف من بينكم في هذا الجلسة الميمونة والبقعة المباركة التي تحفل بالبركة والسعادة الدائمتين يقول ختامي وأقول ختامي هذا باسم الشيخ الوالي والخليفة سيد سابشو ولسائر أسرته رجالا ونساء صغارا وكبارا وما علينا اليوم أن لا أن نشكر عالية الشكر لهذا التشريف من ذرية سليم الصنبا إلى ذرية سليم سابشو وإنه لجدير بتقديري فوالله إنه لعظيم بناء وإن دل على شيء فإنما يدل على خسره وفائه وتجديد العلاقة التي كانت بين هذين الشيخين سليم صنبا وسليم شابز اللذان ما زالت طريق يسكرنا ملازمتهما ومصادقتهما وكونهما متحابين في الله تعالى لا غير أيها الإخوة الأعزاء إنكم تحيون قدرة الأجداد وتسيدون تلك العلاقة التي لم تكن إلا علاقة ود وشوق ومحبة تسيفة التي هي السبب بمجيء سري شارسو إلى بيت سري مصنبة بعد اسم من أقيه الكبير سري بكي بشأل عالم العدل وعلاقة سري سابسو بسري مصنبة بعد أن كانت علاقة نشب قريب وأخوة دينية متينة فكانت علاقة حب بكل معنى الكلمة وقد صدق القائل ما كان لله دام واتصل وما كان لغيره انقطع وانفشل فهذه الإحاطة جهد فائق وهمة عالية ونسجد الله الذي لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء أن التي فعلتموها لنا قد أسرقت شمس الغبة والسعادة في قلب جميع الأسرة المريدية عامة وفي قلب الأسرة المسلوكية خاصة فلكم منا الشكر والتقدير الدائمين جعل الله عملكم هذا في ميزان حسناتكم وكل عام وأنتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته mbokk jullit yi fi teew sunu kilifa yi tedd yi nga xam ne ñoo teew ci jataay bi ginnaaw bi ñu jiitalee sant sunu borom subhanahu wa taala julli ci xayru xalq sayidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñoo ngi ngay nit ñu mbokk yi fi teew yépp di tàmbalee nuyoo boobu ak ziar bi ci kilifa yu tedd yi nga xam ne ñoo teew ci jataay waaye di jégalu bu baax a baax kàddu yi nga xam ne moom lañu fas yéene yëkkati ci seen kanam ndax alxuraan dañoo sant ne bu ngeen toogee seen i kilifa ne ngeen wàcc seen i kàddu ci seen kanam beneen jataay bi mooy toogandoo gi ñu toogal ñoom ci jataay bi kon loolu lépp ñoo ngi koy jéglu bu baax a baax waaye dañ koy teg ci laa tafaalu shay'an bi xayri izni bal ismu sartun fi xabori shay mu mel ni comme kàddu gi ñu tax ñu yëkkati ko ci ndigal la bàyyi ko loo xam ne dafa jigéen ci kilifa yi ñu tànn ñu ne nañ bu ñu dajee kilifa yi ci jataay bi nañu yëkkati suñu kàddu ci jotal ak cant ak ngërëm waaye leeral lenn ci li nga xam ne mooy dundu ñaari jàmbaar yooyu nga xam ne moo ñu tax a daje fi muy sëriñ sa ak sëriñ Masamba ñu tuuti ci lool nag waaye di lu mënta ñàkk ndax ay nit boo leen wooyee bay bañ ñëw rawatina ay kilifa faw dana am koo xam ne dana leen dalal waxtaan ak ñoom saafonte ak ñoom gërëm leen sant leen ci taxawaay bu rafet bi nga xam ne moom ngeen taxaw mu mel ni bis bi njaboot yépp am nañ ci mbégte lool moo xam ne man nañ ne buñ commencé am itam bariwut ndax lii day fàttali ak a dundalaat kóllëre bi nga xam ne ñoom la ñaari jëm yu tedd yooyu seqoon ak mbokkoo googu te ñaar yooyu benn bu ci nekk di lu mat a fonk di lu mat a sàmm ndax suñu borom moo wax ni bu ëllëgee incha allah kenn ku ci nekk ci ñaar yooyu danaa la taxawal laaj la ana nanga ko sàmme woon wattaqu llah alladi tasaaluuna bihi wal arham dellu wax na ni wa awfu bil ahd inna al ahda kaana mashhuuda kon muy ñaari responsabilité yoo xam ne kenn ku ko ci noonu bu ëllëgee yàlla dana ko laaj kon nag feddali gi yi ngeen di feddali kóllëre yooyu ak ànd bu rafet boobu nga xam ne ñaari mbokk yu tedd yooyu ñaari jëmm yu tedd yooyu ñoom lañu àndoon lii mooy li lislaam bëgg te mooy li ñuy fàttalee saa su nekk ndax alquran dañuy wax ni innamal muminuuna ixwatun fa aslihu bayna ay mbokk ngeen kon na ngeen di i mbokk kon ànd boobu daal ñu koy rafetlu bu baax a baax di sant kilifa yi ci taxawaay bu rafet bii nga xam ne moom ngeen am ko defee ci gëstu bu gàtt rek boo xam ne indi nañ ko ci sunu maam di tedd jooju di sëriñ Saa Buso ndax xam naa gëstu yi sax diggante bi xaw naa nga xat lool moo tax ñu tànn ci lenn rek loo xam ne danañ ko mën a jotal ci jataay bi te mu mel ni sëriñ Basiru Lo mii doon wax léegi am na lum mu ci jot jotal loo xam ne dayoon na sëkk ñu yam ci sëriñ Saa Buso doomi sëriñ Matabara Buso la sëriñ ma Bousso Awa Mbaye moo ko jur mu bokk ak sëriñ ko ga genn waajur bokk ak soxna Jaara Bousso genn waajur ak sëriñ Saa Bousso mu mag ma ak ñeneen i mbokkam ndax lim nañ ko ba muy juróom-ñett di ñeenti góor ak ñeenti jigéen kon sëñ ma tabara kenn la ci ñooñu ci mbokk bi sedd googu ci askan wu riis woowu nga xam ne ci la bokk sëriñ ma tabara moomu nag mooy way juru sëriñ Sall Bousso mi nga xam ne moom lañ jagleel bis bi tey kon bu ci ñu xam ne kii nga xam ne moom moo ñu tax a daje fii ci aw askan muris ak martaba bi nga xam ne moom la ko suñu jox ndax yaakaar naa ni bu ñu dellee ci ginnaaw ba léegi askan woowu kenn ku ne xam na ne askan wu tedd lañu mas a nekk te boo ko doppee dafay dem fa Fatimata bintu ya rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam sëriñ saabu sona mi ngi gënee àdduna ci way wetu way juróom mu toqental ko yar ko moo ko jàngalal boppam alquran ba mu mokkal ci li mu gës lenn ci fànni xam-xam yi itam wax nañ ne moo ko ko tàmbali gannaaw bu mu nag la ko jox doomam sëriñ Cheikh Bousso di doomi sëriñ Bousso bi di taawu sëriñ Bousso bi itam moom it mu weelal xam-xamam ak tarbiyaam ci wetam ab diir ci la sëriñ Maxtabara wàcce ak liggéey ñu denc ko fii ci naaweel sëriñ saa Buso nekk foofa ab diir ak sëriñ Sayxu Buso bam yàgg yàlla dogal moom it sëriñ Sayxu yi ko fi sëriñ Mbàkke Buso nag daal koy jël teg ko ci wetam fonkoon ko lool daan ko taxaw loolu itam ndax xamoon na ne mooy léppam mooy waajuram mooy magam mooy léppam ci biir nekk googu mu nekkoon ci ronu sëriñ Mbàkke Buso nag lii nga xam ne mooy li yàlla dogal tey ci foofu la dogale ci moom ndax bi mu fa nekkee ab biir jàng xam-xam ba lépp li mu a xam mu xam ko wax nañ ne benn bis la Serigne sàmba ndax xam ngeen ne Serigne Massamba dafa amoon kóolóor lool ak Serigne Mbacke Bousso ndax wax nañ ne lenn ci xam-xamam sax moo ko ko jàngal kóolóore googu nag taxoon Serigne Massamba bàyyi ko fii doom seeti Serigne Mbacke Bousso kee ca bi mu àggee ba gana ba mu ganale ko ba ba ca ngoon ba mu war a yewwi booba fa la fekk Serigne Cheikh Bousso waaye bi mu yewwi ko itam. wax nañ ne sëriñ ca la sëriñ saa ñëwee ci sëriñ Mbàkke Buso ne ko sëriñ Masamba mii de dama koo gis rek bëgg ko am naa ci moom yëg-yëg lool ba mu ko waxee sëriñ Massa sëriñ Mbàkke sëriñ Mbàkke itam daal daal di ko ci dolli ay jikko yu rafet yoo xam ne moom la sëriñ Masamba lamboo woon loola nag gën a dëgëral cofeel bu mu amoon ci moom wax nañ ne ba mu toogee ba ca gannaaw ëllëg sa ca la tàggu Serigne Mbacke ne ko dama bëgg a seeti Serigne Massamba siyaari bi Serigne Massamba itam Serigne Mbacke itam daa ciy dégloo ñaanal ko bu ñëw ba mu ñëwee nuyoo Serigne Massamba saafoonteeg moom Serigne Massamba itam xam ko bu baax ngir fekk jëm ko fekkoon kër Serigne Mbacke ak xam ne itam mbokkam la léppam la tax mu fonkoon ko lool ci yoon mu njëkk woo ba mu yendoo ba ca takkusaan la wëlbatikuwaat delluwaat gene wax nañ ne ba mu àggee ba war suñu mbàkke ngam ga suñu mbàkke da ca delloo déggaat lool ngir taxawaay bu rafet boobu nga xam ne sëriñ Masamba amoon na ko ci mbokk moom waaye ci biir loolu lépp cofeel gi nga xam ne moo nekk ci biir sëriñ Saar ba tey dañëgul benn yoon jamono yooyu yëpp mu nekk ci moom it saa su nekk mi ngi waxtaani sëriñ Masamba ak mbaaxam ak di ko xalaat loola nag dem na ba benn jamono mu xëy benn bis bi muy jóge foofu sax wax nañ ne sëriñ Mbàkke yëgu ko dafa xëy rek tàggu ñenn ci xare yi ne leen damay seet sëriñ Masamba bi nga xamee ni ñëw na ci kër gi ba ca ëllëg sa la sëriñ Mbàkke laajte ne ana sëriñ Saabu Sow ñu ne ko sëriñ Saadi démb bi mu fiy jógee kër sëriñ Masamba Mbàkke la tàggu woon sëriñ Mbàkke itam xelam daal ni yàlla ca lam ko waxoon mooy bëgg googa ak cofeel googa mu am ci moom mu daal di toog ba te ëllëg sa moom it mu jóg ci tànku boppam moom sëriñ Mbàkke Buso ànd ak ñenn ci fere yi ñëw seet si sëriñ Masamba wax nañ ne bi mu agsee bi ko sëriñ Masamba gisee moom it dafa bég lool mbég moo xam ne ku fa toogoon ca jataay ba rek yéen ko mu nuyoo moom saafonteeg moom dalal ko mu toog ba ñu waxtaanee ab diir mu ne ko nag li ma taxoon a jóg mooy dafa am sama mbokk moo xam ne dafa ñëw fii ci yow muy sëriñ saabusu moom la doon seet si mu ne ko waaw mi ngi fi de ñu woo la sëriñ saa mu ñëw ba mu ñëw nuyoo sëriñ Mbàkke Buso sëriñ Masamba daan ne ko kaay nag dellu ànd ak sëriñ Mbàkke ndax yow da doon topp si daal di yëkkati peñu suukar akum baaj yi jox ko ne ko demal te nga xam ne li nga fi doon wut si am doo comme moom mel na ne ca ñoom bu njëkk rek ca la amoon gërëm ci sëriñ Masamba ngir cofeel ga te muy cofeel bu dëgg bu wér goo xam ne lillahi taala rek moo taxoon mu am bi mu defee loolu bañ demee ba ca yowma sëriñ Mbàkke laaj na ko ne ko ana sëriñ sa lan moo la indi ci kër kër sëriñ Masamba mu ne ko xanaa bëgg ko ak gëm ko ak wóolu ko nee na ñu bàyyi noonu ndox ab diir ba àgg gede ba ñu toogee ba ca ëllëg sa ba ca yoor yoor sëriñ Mbàkke delloo ko woowaat laajaat ko la mu ko laajoon sëriñ sa tontu ko la mu ko tontu woon mu ne ko kon kaay nga dellu ko sëriñ ma sàmba ndax nit la mu bëgg te gëm ko te wóolu ko ca la njariñam nekk demal nga nekkal ñu foofu ci kër kon lii mooy sababu li ko indi ci kër sëriñ ma sàmba waaye bi mu ñëwee itam cofeel googu mu waxoon ak bëgg googu mu waxoon ci diggam ak sëriñ ma sàmba saa su xëyee day gën a yokk day gën a jëm kanam day gën a dolli ndax lépp loo xam ne bëggu sëriñ ma sàmba waaye lépp loo xam ne yaakaar na ni sax ba dugg sëñ Masamba la loolee saa bu xëyee ma nga ca di ca dox guddi ak bëccëg suba ak ngoon waaye itam ba mu ñëwee sëñ Masamba xam ne mbokka moo ñëw ab nawle moo ñëw koo xam ne dafa am cër bi ñépp am mu bàyyi ko ñëw ànd seen man ngi yàlla moom it mu fonkoon ko lool wóolu ko lool sësale ko ci boppam lépp lu mu daan def lu day wax ne nañuy woo Serigne Saa mu ñëw mu jiital ko ca kanam ci noonu la ñu nekke ci dund googu mboolem liggéey yi nga xam ne ñu ngi ko doon liggéeyal Serigne Touba moo ko Serigne Saa Bousso ñoo ko ànd ba ci Daaru Karim gi sax xam ne bi ko Serigne Massamba di sanc moo ko Serigne Saa Bousso ñoo ànd ci biir loolu itam mu dogal ko suuf soo xam ne da koo da koo ko ay taalibe ñu nekk fa loolu gannaaw bi nga xamee ne sax ànd nañu liggéey ba yàlla dogal mu gërëm ko la ko boole ñeent fukki taalibe ñu yóbbu leen fee ca keer ndaw daggal leen fa suuf soo xam ne Bousso bi lañu ko tuddee woon sëriñ saa Bousso nekk fa ak taalibe yooyu di leen tarbiyee di leen jàngal alxuraan mu nekkoon ko sëriñ Masamba fonk waaye ci biir wàcce boobu itam teewul moom wàccewul woon boppam moom dafa wéyoon di ànd ak sëriñ Masamba ci mboolem liggéey ba nga xam ne lépp lu sëriñ Masamba daan def rek da xam naa ci tënk rek bi nga xamee ne sëñ Masamba wax nañ ne ngi bëgg a génn àdduna takkalu na ñaari néeg ndeke néeg yooyu mu doon takkalu ci wàccaay woowu la la nekkoon daal di e, jóg jëm ci ak tukki mooy tukkeem boobu nga xam ne moom la mujjee tukki e, te gannaaw ba ca la ko sunu borom e, moomee wax nañ ne bi ñuy dem sëriñ Saabu Sola àndal waaye ba ñu demee ba ca yoon wa dafa wax sëriñ Sabiso ne ko nga néeg ma Tuuba su ma ñëwee da nga am ab liggéey bu mat liggéey te mooy béréb bi bi mu agsee Tuuba ab diir bu gàtt rek ci lañ ko tàggee ma Masamba lii wane cofeel googu ak bëggeel googu ndax nit xam nga xam nga man nga ko bëgg ngeen ànd ci àdduna waaye nit ku fi jugee nga ànd moom ba fañ ko denc nga bokk fa nekk ak moom loolu yomb bi fi jugee sunu bàjjan di wax nañu ne booba ñoom ñu ngi fii ci jàkk ji nga xam ne mooy jàkk Serigne Mahmadan fi leen dëkkoon waaye bi Serigne Massamba bi ñu ko yóbboo fee ca béréb ba Serigne Saabu so dafa daal di jël këram yóbbu ko foofa ca buntu armeel ya nekk fa ak moom ba wax nañ ne xay nga xam ne ñoo nekk ca buntu armeel ya Serigne Saabu so moo ko fa jëmbat biñ fa nekkee ab biir yàlla dogal Serigne Saabu so bàyyi ko fi Serigne Modou May daal di yónnee ne nañu jëli njabootu Serigne Saabu so indiwaat loolu nag mbokk yi yaakaar naa ne cofeel bu dëgg bu wér boo xam ne yàlla rek moo moo tax mu am mënu ko weesu kon diggante ma sàmba ak Serigne Sabuso nii la demewoon mu waxoon ci moom nag ay wax yu yéeme ndax Serigne Cheikh Mbacké ibn Serigne Modou Fati Xari nettali na ne moo jëlee ci Serigne Modou Fati Xari mu wax ne Serigne Massamba moo wax ne Sabuso de deretam ak sama deret danoo jax soog te so de képp ku ko gis sa yaram araamal na sawar moo tax benn bis soxna Maguette Mbacke mii bokk ak xëy dafa xëy si kër gi fekk Serigne Cheikh Bousso boobu mi ngi fi. mu nuyoo moom saafonteeg moom ne kon Serigne Cheikh dama laa siyaare si tey ndax damaa déggoon ci sama mag ju baax ja dem wax ne sëñ Massamba moo waxoon ne sëñ saa bu soree daratan ak sama deret ñoo daxasoo te Serigne saa bu soo bu ko yaakaar sa yaram araamal na sawar moo tax ma di la siyaare si bàyyi Cheikh ni Diop eh, daan ne ko ay Mbacke yi nga mën it maa ngi mu ne ko xaaral ba lii ni ma ñore mu ñore la ko mu jóg seet ma man lii ma la wax dama cee am lu wér kéng moo ma tax a jóg kon diggante sëriñ Massamba ak sëriñ Moussa Bousso benn lañu woon yi nga xam ne nag li ma wax léegi ci lépp loo xam ne bëggug sëriñ Massamba la mu ko daan liggéeyal sëriñ Touba dëkk bi loola bu Massa toog ko ci ab noppam wala mu dégg ku ko xam ne bëggug sëriñ Massamba la sëriñ Moussa Bousso day daal di jóg balaa am jàmm loola dafa saafara kenn ci njabootu sëriñ Touba gi mas naa yónnee ci sëriñ Masamba mm, wax ko ne kat leen ne bàyyi ma Samba sëriñ Fallu la damaa bëgg mu ñëw yeesalaatal ma sama kër nee na ba ñu ñëwee wax ko sëriñ Masamba eh, mu yónnee ca sëriñ Dambale Lo mi doon defal moom it waxtaan yu bari yàlla dogal fekk ñu fa mu daal di ñëw mu daal ne nañ dem ca sëriñ Saabu sa wol ma ko nee ko wooyee ba muy jóg maanaam ay dàll sax solu ndax moom ma masaa jóg dégg ndigalul sëñ Masamba duutu am jàmm ba mu demee ba àgg sëñ sa sëñ Masamba ne ko sëñ doomi sëñ Touba di dafay yónnee wax ne daa bëgg ku ko ma bëggoon nag fekk nee booba kër gi ñu ko defar ba mu rafet defaraat néeg yi ba mu rafet sàkket ko ba mu wër mu ne ko ma bëgg nag nga toppatoo ma loolu joxal ma ko sëñ Fall nee ba mu demee mu ne ko Mbàkke waaw daf ne ko Mbàkke de nii ma ko déggee xeer yee ma bàyyi ci kër ga ak néeg bu ñu amee woon ak roox ba mën a dégg lii may wax bu may bu ñoom ñooy ànd daal di wàllu di ko ànd ak ñooñu nga xam ne ñoom la Serigne Fallou yabaloon ñëw xeddi néegu boppam ba jox leen ko ñu yóbbu ba ñu àggee Serigne Fallou yéemu ca jëf jolool mbokk ya nga xam ne ñoo ko jël si woon itam nettali ko mbir ma na mbir ma daal ne cay saa bu moo muus de waaye na xam ne nii gën bii mu ma jox ni boo liggéey yomal xiyaam danaa ko ci fay kër goo xam ni dana ci dëkke moo ko njabootam ba mu des ak mbooy kon jagle yoo xam ne buñ yamoon rek dana doy sëkk ci martaba bi nga xam ne moom la ko yàlla defal waaw bi nga xamee ne sëriñ Cheikh Bousso mii nga xam ne moo ko fi njëkk wutu jóge na ñu dem wax ko sëriñ Saalihu Masamba fekk boobu moo fi nekk xalifa Cheikh Masamba ba waxtu wa wax nañ ne biñ ko koy yëgalee daa fekk sax aw yaramam xaw a jage waaye biñ ko ko yëgalee ba waxtu wa ñu war koo taxawu bi mu daal ne nañ ma indil sama waajtaay yi ma waaj damay dem ca barab ba mbokki taalibe yi fa nekkoon ne ko sëriñ bi te ngaa yeble rek ndax sa yaram yi ni mel mu ne déedéet loolu sëñu ma ko ndax sëriñ Seex Buso mii sëriñ Seex Buso mii day taalibe sëriñ Masamba bu wér te bàyyam day sëriñ Masamba moo waxoon ne deretam mooy li ma waxoon léegi ak dereti sëñ Saa Buso ñoo jox ñoo jaxasoo waxoon na ni itam sëñ Saa Buso yaramam araamal na sawar te loolu bu delloo ci ci histoire loolu nett li ci indi rek ci diggante Serigne Touba ak mbokki Bousso benn yooyu la woon noo wax nañ ne benn bi si njëriñ mas naa dajale magi taalibe yi sant Bousso ñoom ñëpp ne leen dama bëgg xool seen mbir ci sunu borom nee na ba mu xoolee ba génn daa jàkkaarloo ne ne leen kun koonoo min ahlil janna ci waa nekk leen bokk leen ci waa àjjana wax leen ko ñetti yoon ñu ne teg ba mu yàgg ne leen xaalu kunnaabu ñu ne ko kon bokk nañ ci nee naa wax nañ ne sëñ Abdou Lahad ni ñu koy nettalee sëriñ Masamba Kan ni doom la da koo defoon ak jéem wax kunnaahu kunnaahu rek la yendoo gisul keroog kon loola sëriñ Masamba da koo feddliwaat ci sëriñ Saabu Sow ci ñoom seen cell la daal askan wu sell la woo xam ne suñ borom daf leen a sellal moo waral euh, kii nga xam ne mooy waajur Seexu Xadim di soxna maam Jaaratullaahi Mariama askanu mu soobe suñu borom sellal leen teddal leen ba moo tax fu ñu nekk rek sell sell ak tedd ak jaamu yàlla rek mooy si biir kon daal xam naa ne ci gàttal goo xam ne xam naa ne liñ ñu waxoon ma war koo wax daanaka li ci jàpp bari dama koo jàpp sama xel li ci bari mi ngi ci kaye bi ak toogaay bi yàgg na ci kilifa yi ñu ngi toog waaye ñu ngi sant yàlla bu baax a baax ci jotaay bi di sant mbokk yi fi teew yëpp njabootu Cheikh Massamba bi tàmbulee ko Cheikh Mouhamadul Moustapha sëriñ Mamour ak mboolem yëpp waaye di sant bu baax a baax a baax sëriñ Cheikh Mbacké ibnu sëriñ Mahmoudan Jobbe gis nañ taxawaay bi mu taxaw ci njaboot gi ak kër gi loolu ñoo koy seereen mbokk jullit yëpp ak mbokki taalibe yi ñu ngi koy ñaanal suñu borom yàggal ko lool te dëgëral ko te wéral ko ba mboolem yéen yi nga xam ne am na ko si liggéeyal sëriñ Touba suñu Masamba maam mu defee ko na mu ko bëggee di siyaare mboolem mbokk yi nga xam ne ñoo fi teew mbokki musóob yi kenn desul tey ñëpp ngi Eh, ndaw ko daay ñoom ñëpp bàyyiwuñu kenn ñu sant ñëpp di gërëm ñëpp waaye di sant bu baax a baax suñu kilifa yi nga xam ne itam ñoo nekk ci suñu kanam te ñu jiital te suñu bàjjen soxna Soola Buso soxna May Daaro Buso Moxti Daaro Moxti ak sëriñ Mahmoudan Buso sëriñ maam sëriñ ak mboolem njaboot yëpp bàyyiwuñu kenn bis bi biñ ngeen koo waxee ba léegi amatuñu jàmm ngir bëgg lépp mel na ngeen ko bëggee ndax ñun seenu bëgg rek lañ ci dàkk ak itam fàttalee ci ci diggante ñaari mbokk yooyu seenu taxawaay ni ñu ko waxee léegi ci njaboot gi nga xam ne ñoo fi des tey ñu war koo gën a xam bu baax baax gën a fedd li kóllëre gi nga xam ne moo dox ci seen diggante lool mooy li tax ñu amal jataay bi kon mi ngi ñaan lépp luñ ci séentu ci ay ngëneel ak i xéewal ki barki yal na ko yàlla def barakati sayyiduna muhammad sayyiduna ba sallallahu alayhi wa sallam barki si ahmadu bamba xaadimu rasul wa axiru daawana an alhamdulilahi rabbil alamin asalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh lena na kon daal Serigne Saabou Sow ko daloon du leen lu may la bi doon wax naan almar u maa man ahabba Serigne Touba wax ne sur man tuhibbu wa in satat bi daaru wa alamin dóori yi saaxlu na waxaaru kon yàlla nañu fayal euh, pour njëkkante waxtu yu ba léegi rek dañuy dox kàddu gi Serigne Abdoul bu Bousso moom it mu def ci ay contribution yu ndaw rek lu tolloog ñaari ñett ñetti minutes bisimilah sang bi.